sëriñ Moustapha waxoon ne dañuy fas yéene dem ci élection yi ñu ñëw di feddali yóbbante boobu man nag li tax may wax rek mooy dañu bokk projet projet bi mooy tabax doomu aadama ma dégg nag université Cheikh Ahmadou Bamba bi nga xam ne posé nañ première pierre bi fii man may jàngalekat eh, tabax université boo xam ne am na ñaar fukki at ak benn ci ren bi ma déggee projet boobu man ne dafa nekk projet boo xam ne dafa méngoog ñun suñu programme ah li ñu indi fii nag mooy mébét bu ñuy ñaan mu antu mooy yore réew mi bés bu ko suñu borom tuddee projet boobu ngeen sumb muy université Cheikh Ahmadou Bamba du sax intérêt Sénégal rek wante intérêt àddina bi yëpp la comme intérêt àddina bi yëpp la nag dafay obligation pour ki fi yàlla di teg ëllëg mu bàyyi ci bëtam loolu daal laa buggoon a wax parce que dafa nekk projet bu nekk sama xol. ñëw fii si mébét bii nga xam ni moom la ñu am euh, dama. dem si xalif général des Tidianes sama papa sëñ Mbaye xam ni sëñ Moustapha ka yar si loxo boppam sëñ Moustapha itam bàyyi Mansour moo ko yar bi mu juddoo mu tuddee ma ko kenn tuddeewuma Alaaji Malik kenn tuddeewuma sëñ Babacar mais sëñ Mansour doon ma tuddee ndax moo ko yar moom tam moo yar xalif bi ma dem ni ko dama bëgg nekk candidat mu ne ma candidat la ma ne ko pour nekk président mu ni ma nekk nga président ba pare ma ni ko lu tax mu ni ma li nga am Macky Sall amu ko waaw soo génnee si mbedd dafay tàll loo xam nga tëfli si loo xam daal làmb poosam lu am yaa soo ko ñaanee mu jox la soo jox la mu ni ma loolu amu ko ma ni ko waaye Macky Sall am na lu mu am te man awma ko ni que bërki démb dama romb palais mu waroon fa jaar ñu bloqué sama oto ñaari waxtu mënuma jàll ndax Macky Sall moo ko nekk ma ni que sama Abdou Aziz daf daan wax naan su élection ñëwatee ñu ni ñëw jël réew mi di ko teg ci seen loxo nan ko seetaan parce que li may nekk nekk Abdou Aziz di nekk xalif général des Tidianes Abdou Diouf bi su ko neexee duma génn dëkk bi ñoom am na nu doolee bu nga xam ne bii suñu jëmee ci élection nu seet ñi nga xam ni makaarimul axlaq dajale ci ñoom ñu dénk leen ko foofu nag la nu toll kër gi kenn mënul def dara ci Sénégal te mënoo fi li may wax euh, ulul baqiya euh, doomu mag ñi waaw maam maram mooy mag doom yi mooy sëñ Tuubaa ak seen xaaj Maalik yanhawna anil fasaadi fil ard su fekkee ni nag ñu ngi jëm ba lu mel na président la république moom ñu seet que mu bokk ci parti bu nga xam bi bii sëñ Moustapha bu sëñ Cheikh mooy président bi waaye mu joxoñ ka man tam parti bi ma nekk di bés du ñàkk Cheikh Seydou Mouhamadou Moustapha ñun ñaar ñëpp ñu bokk joxe waaye ñu yëg ni joxeñ bi du mët mukk tant que ñëwuñu fii wax leen ni ñun kii la ñu joxe sàkk wunu nag te ngeen wax nu moom la wala du moom mel nag am nañu droit sàkku si yéen ñaan ñaan coocu ni sa maam Sëñ Tuubaa moo ko fii bàyyi te amul sikk si nii mi ngi si yow ñaan coocu nag la ñuy sàkku bi may defar bés du ñàkk dama dem seeti sëñ Mansour ni ko damay ngénte bés du ñàkk dañuy créer bés du ma kaay ma ñaanal la mu ñaanal ma mu xaalis bu bari jox ni ma la jox njëgu añ d'accord na si li ngay def ma ni ko ma waaye des na ma ni ko lan mu sa maam ba sa ngay ngénte ni mu si amee cër la si amee cër demal nga seeti ko ma ñëw fekk fi sunu baay Sidi Sidi Mokhtar mun ma yokk sama taab sëñ Moustapha ay seex ngeen waaye sëñ Moustapha sama bos moo la magee six mois bi ma ñëwee mu ñaanal ma waaw ni ma lii dem si am cor kon nag naa la ñaanal il mu barkeel loolu yëpp nag la ñu dajale moo tax sëñ bi ñu ñëw fii di sàkku ñaan ñaan rek la ñu soxla sëñ Modou bi muy nuyoole wax bi mu ko jot li nuyoo sëñ Moustapha ba ca gàmmu ga da ko nen noo ngi gën a jabootoo mooy gën a delloo seen bopp ci njabootu sëriñ bi mm-hmm. waaye sëriñ bi it noonu la wax Alaaji Isaa ne ko ngi leen di nangul bu baax ne ci njaboot ngeen bokk mm-hmm. kon dafa mel ne ñaari baat yu rek mm-hmm. moo tënkaat li nga doon wax te loolu waxtu wu nekk ci loolu la ñuy dund biig rek sëriñ bi dana yónni bis boo xam ne njabootu Alaaji Malick ñoo ko doon def ci dëkk bi te si ak sëñ Sidi Ahmed ko jàqalante bu mel bu rafet boobu rek lañ fa waxtaane mm-hmm. mooy mag ñi mësuñoo tàggoo mm-hmm. ba leen yàlla booleeg bokk mm-hmm. boole leen diine ji boobu lañ àndoon ngir yàlla ànd googu ngir yàlla ba ndëgë ni ñi ñi ñi ñi koy donn ñi ngi koy donn di ko dundal di ko rafetal ba ci sëriñ bii dundal loola rafetal ko rek mooy yitteem ndax sëriñ bi ni ko ñëpp di waxee diine lislaam rek mooy di ko ñor bu sañoon itam nit ñi xam ba mën a jaamu yàlla hmm. ndax lam ta alfani fakay kon nag ginnaaw da ngeen ñëw fekk fii li ngeen àndaal li ngeen fekk fi hmm. loolu kay day yomb lool hmm. ndax lu baax rek ngeen ngeen àndaal di ko wërsi fedd li coloré ngeen fi wërsi delloo seen bopp ci biir njaboot sëriñ bi ngeen fi wërsi te fekk ngeen sëriñ bi nangu leen lépp noppi kon sant yàlla rek lay doon sëñ bi gën leen a ñaanal alhamdulilah ok sëñ bi nee na am na mbégte bu baax nag ci ci ci ci yéen waaw na li nekkoon foofa xam na li nekk fii itam te na loolu rek moo leen fi fas yéene dundal loola fas yéene sàmm te sax ci daal bisimilah kon sëñ Modou Thank you.